dellusiwaat. waaw ñun sunu côté eh, sunu xel dal na parce que camion yaa ngi wàcc ni mu waree soobu bu ne dinañ am dix camion ba quinze camion. bés bu ne bés bu ne. kon loolu xar yaa ngi ñëw mais li nga xamante ni moom xaw a jaaxal éleveurs yi fi ñu toll nii eh, dañoo gisul jëndkat yi jëndkat yi moom dafa xaw a néew te loolu su fekkente ne eh, avancé na tuuti rek. xam nga téléphone yaa ngi fii kenn da ngay nekk frontière wala beneen région bëgg wàccee laaj lan moo nekk foofu su fekkente ne wax nañ njënd bi amul ah doo doo ñeeme indi sa jur fii rek ngay sotti ngooñ ak rakkal parce que lii leen daaloon daaw la ñuy dow mais su fekkente ne njënd bi démarré na ni mu waree incha rabbi munu mun ñunu mun nañu assurer xar du manqué parce que xar bari na ci frontière bi bari na yeneen région yoo xam ne mënaguñ ñëw ndax njëkk njënd bi. wax nga ne ñàkk kaaraange bi nan ngeen mën a dundee noonu bi mel ne croisement Koungheul yéen gendarmerie ma nga fa lu ak kaaraange bi doyul. kaaraange bi am na mais dafa doyul parce que forage bi dafa yaatu. dafa yaatu am na côté yoo xam ne lumière am côté yoo xam amul lumière. te da ngay xool tey éleveurs yi ñi ñuy wàccee dañoo bokkul am na ñoo xam ne ñu ngi wàccee cent tête am na ñoo kam ne trois cent ba quatre cent loolu xam nga dafa bëri mu moo tax mënuñu goloboo benn place dañuy xool yow kii day nekk fii kii nekk fële mais am na foo xam ne fi lumière bi àggu fo kon day xaw a indil éleveurs yi jafe-jafe. yéen ñëpp ngeen bëgg kaw tali bi alors que am ngeen daral bu bees. Euh, la trois hectares la ñu tabax clôturé ko. dégg foofu nag ku yor ku yor fanweeri xar ak ku yor deux cent xar ak trois cent xar mënuñu fa bokk. jamono ji xar yi ban yan euh, am na yu jógee si régions yi am na jógee Mali ak Mauritanie waaw. njëg yi fi mu ne quatre vingt dix mille bu ci seer bu xam ne mooy xar yu mag yi cent vingt cent trente hmm. daal mu wàcce ci suuf. foofu daal moo fa gën a bëri. léegi lan ngeen di xaar seen ministre bi ci amélioration pour opération bi mën a réussir. waaw ministre bi ñunu mérito nañ ko. préparé nañu sunu biir bu yàgg préparé nañu xam naa ne li fi ne su fekkente ne fas nañ yéene dulli ko waaye nag li problème bi rek mooy li ñu wax affaire client yi ñoo xaw a néew. gisaguñu leen daal wax dëgg yàlla mama yi comme niñ leen doon gisee. ndax buñ ci taxawul xar du manqué loolu li ngay wax noonu. waaw su fekkente ne ñëw nañu war a jënd jënd xar dina wàcc téléphone yi dina ñu ngi fii ñeneen ñu ngi xaar pour bëgg a chargé mais njënd bi moom moo kaw a sookandiku te nag sa moroom du wàccee jaayul yow it nga wàcce keneen chargé wàcce loolu mooy affaire bi ah, mais su waaw su fekkente parce que dañoo bañ li ñu daloon daaw dal ñu daaw ñëpp dañoo ñëw ah lépp finalement fii la des mu am jafe-jafe ci éleveurs yi même doonte état bi mu ngi leen di jàppale du tee am na jafe-jafe boo xam na ñoom ñoo ko yëg seen biir parce que ñoom moom seen àll